kooku moom euh, cheikhul islam alaaji ibrahima Niass moom la yàlla def baabul maftuux bunt buy beekoo ngoog lu kulli man yuridu wuluj moom awsa yi ñoom dégguñu ala waaye ba ñëwee dañ ne fa man saa yaati yaati wa man saa ankara en tout loo soxla ci moom boo ñëwee fekk ko kooku mooy baabul maftuux bunt biñ hubbi lu kulli man yuridu wuluj gàntaluñ kenn gàntalu doon kenn yuruj wuluuj fan li hadratu qudsi boo buggee dem maayam hadratu qudsi hen la mahwi siwaha laa siwaha yaa man yoroom riqaa ah. foofu nag boo fa àggee bàyyi nee na ci bàyyi laa la mooy kan ñoo ne yow taalibeem bi bu fekkee dëggu nga mu ne waaye man sumay taalibe bëriwut waaye ña ca dëggu daan nii lañ war a mel boobu rek doyoon na yóbbalu tay ba pour bàyyi jox ko taalibeem dëgg fekkee ma leewut mille personnes junnee nit di ko tagg ak junnee nit di ko xas mu hem ñaar ñoo hem ci moom feexaagoo fa rek doo am leer ci yàlla feexaagoo fa doo mën a defar keneen ci kaw suuf naan moo ma wax lii dama daf ma doon xeelu daf ma doon soboote daf ma bañ daf ma añaane ko kan la mën a defar kooku dafa defarewagut te bañ laajee bàyyi kan mooy sëriñ mu ne mooy ku pare ci boppam ay ku pare ci sa bopp pare sa bopp bon kay bàyyi mbaa sëriñ fukki sëriñ mbaa ñett <laughs> danañ am fu ñu dee ci àdduna ku pare sa bopp kooku rek moo mën a defar doomu aadama kooku nag moom moo doon drapo ba daan far ci kaw nii bon dem nga palais bi fii ah, kii Macky waaw ah, ku falu rek di nga kii boobu fu mu nga fay fekk ak ay ki ak yooyu Macky Sall ak Esga bu dee Ablaye Wade lu fa dee ko am na ah ak <laughs> lu ba fi Abdou Diouf nekkee waa léegi nag boo mënoon na jàng drapeau bu ñu forforu ci kaw ci jamono bi man loolu laa la ko mën a waxee yow waaye man ba ba tey ji drapeau boobu mu ngi ci kaw naan nii bu fekkee ci xam-xamu diine kañ lañ bugg a wax wala ñu bugg a xam wax ci xam-xam haa matan te kooku moo yoon sëriñu jamonoom bu fekkee tarbiya muridin kañ la ta ta yar ay taaliba ba ñoom ñu mën a yar keneen xamoo ku mën da yar keneen ku bu ñu la ne tarbiyu nga dañ lay nax comme tarbiyu léegi ñaari baat ñett ñu ne la demal doxi faatiya nga ñëw waaye ñaari yoon ñett mu ne la ah, gisoo ko nga ne ah muy mooy nangam nangam kooku lan lay xam kooku bu paree du mën a tarbiya kenn kooku mooy xalamul muhtadin gaa yi jub ya kooku nag mooy ki nga xam ne guddi gi daf daan fecc damay wax ne man mi jaar Medina Baye fekk gi ngi dund guddig Medina Baye ci jamono man ak guddig Medina Baye tey différence manuma laa wax nu mu toll weñ yi naaw noonu léeg-léeg poti lampe boo ci tolloo ni ñuy naawee noonu sax jamono boobu nañ daan naawee ak bu tey du benn kooku mooy bahjatul layaali bokk wala ayam kooku mooy hujjatul xaarifiin képp ku bàyyi defal li jaase nag xam na yàlla rek kooku kenn dootu laaj xam yàlla kooku mooy hujjatul xaarifiin te noonu na nag almaarifatu indi salaas ah xam yàlla ci man nag ñett la da ngay jeex ca saatu ba jëm yàlla ja su ma sifa nga jeex jeex ci melokaan ba benn mu ne wala ñaar foofu nag gaa yi yi eh, gaa yi xaw lañ fa gag walla ñaar am na gaa yi la léegi ñu ko bëgg a ba ñett ba ñeent ba juróom <laughs> mu ne boo naree romb loolu mu ngi mel ni ngay dox ci tarab dëgg xam naa kooku saalum saalum dëgg moo koy xam dëgg dëgg ya ngay ci dox te solo daal dana saf kooku moo doon naasiru tariq ahmadiya ibrahimi ahmadiya moom moo dimbale tariq Cheikh Ahmad Tidiane Cherif ba tey foo yegg loolu ci tarjama bàyyi defe naa war na doy te xaajut xaajut xaajut xaajut euh, moom kooku yow mbokk mi may laaj bu fekkee danga ngaa laaj ci wàllu jikko moo gënoon a rafet jikko ci képp ku mbokkal jamono jikko ja dafa rafetoon ba ñëpp gërëm ku jege ku sori góor ak jigéen mag ak ndaw dafa amoon samaa'il qudsiya muhammadiya muntaha fi al-ulum al-haqqaniya wal wahbiya wal ma'arif rabbaniya rahmaniya ila martabati allati yafsul an wasf al-adab maanaa daam mu ci gàttal wiraasa muhammadiya donoog yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa tarbiya ahmadiya ak yarab Euh, maqaama ahmadiya alqadmiya muy Cheikhu Tidiane mu ngi daje woon ci Baye Niass kon ñu jàll rek ci beneen question di la laaj euh, moom mission am ni mu ko réussir maanaam li nga xam ne dafa ra kii sax te président yi fi jaar yëpp doon lëkkale Afrique ak lépp ñu gis mel na moom façon xeet bu nekk a fay nekk mission boobu noonu moom nan la ko def ba réussir mooy li ma la tënkal ci bi nga may laaj kuy bàyyi rek a borom drapeau bi nga xam ne kañ bu demee ba sa dëkkuwaay fa lañ samp drapeau bi nga xam ne mooy tegtale lépp lu nit soxla ci diine lu nit soxla ci alquran lu nit soxla ci màkk lu nit soxla ci tarbiya lu nit soxla ci xasaka lu nit soxla ci baatu saada laa ilaaha illallaah kooku kañ ku yàlla defal loolu ah kooku foog mu dajale aw xeet xeer wi nag moom ba mu demee may yàlla mayam gim mu àndaloon moo koy indil gars yi moo koy indil lépp xam nga gars yu bari ñu naan bàyyi nangam la daan wér yow mi fekkee bàyyi da nga mos fekk bàyyi nga kurus bu fajar jotaan ba mu génn ci euh, jumaa ji ngob dokk bi di dóor foo toll ci Medina dafa mel ni dañ ko branché woon ci benn micro fon da dégg ni muy dóoree ni muy dóoree dokk bi ba dem ba ci mihrab moom laa tuddee saydul mihrab xam nga ñeneen tuddee nañ ko kom déet bàyyi nekk na ci àdduna ba mission jeex te mos de jullee fudut ci mihrab maanaam bu jiite wudit moom ci mihrab bi rëkk lay jiite lay lay taxaw bàyyi moomu nag dafa gis ne moom pour mu réussir ëllëg jullit dëgg dëgg dëgg mu ngay bëree ca mbokkam maanaam pour nga am doole yow yow doomu aadama foog nga am doomu adama yu bëri yu nekk sa wet loolu secret la ci doomu aadama bi xayrihi islaamin mooy diinu joo xam ne moo fi des moo mujj a génn waaye moo fiy des te moo amee kàttan te moo fi nekk baabat waaye diina la joo xam ne kenn mënu cee taxaw liggéey ci yow kenn foog nga xuut ndimbal loo xam ne moo laa jàppale moom nag fi mu commencé ba mu ne alhamdulilah mooy suñu sembal ñun képp ku bokk ci Cheikh Ibrahima alhamdulilah mooy si sembal alhamdulilah bii nag mënoon nañu ci def tey émission ak alhamdulilah ala jamiyal wara fa alhamdulilah mooy suñu sembal ba mu ne alhamdulilah ñu ne lam njëkk a firi rek mooy ne yow mi ma nga xam ne maay sa sëriñ te man suma taalibe yombut mooy foo mën a ne ci àdduna na nga mën a méngoo ñoom méngool ak jamono méngoo ak jamono nag taxul nga wàcc yoonu diine waxuma boobu de méngoo ak jamono boo xam ne da ngay changé yére changé waxin seet yàlla yu wax Cheikh Ahmad Tidiane Seck dañ ko laajoon ragal yàlla mu ne nga def ko ni ko yàlla buggee nga ni mu la tere digal ngay koy def ni mu ko buggee duur yow ni nga ko buggee waaye lim la tere ngay koy bàyyi ni mu ko buggee moom duur yow ni nga ko buggee bàyyi nag mu ne pour ñu yaatal nag moom la ñu indi mu ne indi na ko ci fànn yëpp waaye dafa bëgg mu yaatu ñu ne ko noo bëgg mu yaatu mu ne loolu mën da taxaw lu lu mel ni jamiyatu ansaaru diin eh, maa ngi nuyu passage ki ñu ko jox léegi eh, muy xale bu baax Braham Seck am yar ci ñëpp moo yore bés ndiki tey garaal la ci moom yàlla jox ko loolu Euh, mu ngi ca na ko baay buggee woon dafa buggoon mu tas dafa buggoon ñu tànn dëkk bu ne ñu tànn fa def fa bureau mu am président am la fa war yëpp ñu am ay karne ak i carte yoo xam ne boo paree heure bu ne boo jokkoog moom dana la wax taalibe bàyyi bés ni ki tey ñaata lañ ñuy dimbalante di tasaare lislaam bi di euh, di tabaxi jàkk di woote di organiser ay conférence diine ci mbooleem àdduna bi di def ay congrès di liggéeyal pays bi mbooleem fu ñu mos a fu ñu formé boobu na nekk bureau boo xam ne dafay am li ñetti ñetti ñetti ñetti doole yu am ci gouvernement defe naa législatif la ak exécutif ak judiciaire loolu la wax ne mënu ko kii am mënu ko ñàkk ba mu pare nag moom mu ne waaye ànd ak yooyu yom nag moo tax nag boo demee eh, Nigeria formé nañ jamiya nga ñëw senegal am na ay jamiya yu bëri même bay demoon na sax ba dem formé eh, eh, benn association ci gaana bu mag boo xam ne pour culture rek moo ko tax a jóg pour ku fa ne rek da nga war a xam parce que Baye moom ne na ku xamul war doo jiite ba àdduna tukki al ilmu tabsiratul anaam bi anna al ilm huwa al imam maa ngi xëppi bëtu doomu aadama yi te xëppi seen bëtu xel ne fii kenn mënu fi nekk njiit ci lenn hatta hatta ci gaay yi doxal noonu ci suuf bu jubut bi te boobu taxut a jox kenn kooku foog borom xam boobu mar dem na ba gaay yi di ko wax ne waliyu la te foog nga xam waaye xam biñ bëgg ñun mooy xam-xamu leer xam-xam biñ doon ne ci yonenteel mu sallallahu alayhi wasallam xam-xamu alquran boobu lañ soxla moo tax Baye eh, xam naa ne bés dana ñëw ñu gëstu ko ba jox la ko mën nga ñu defal ci émission ñaata association lañ sosoon ci jamono baay yi ko dimbale nag ba mu réussir ci wooteem moom lii la mu ne dafa gëm ne kii def kenn ki la jàppal boobu def ko principe bés ni ki tey kii def kenn ki la boo amee ñaar nu muy def si bu ko ñaar naroon na def du ñu am werante suuf si nag <laughs> dafa yàqu kon nag kenn ki moo fi nekk di def kooku mu àla lillahi al min qablu wa min baadu yàlla moom mbir yëpp ma waxal la benn secret xalqu ak amru rek moo am ci mooy li ngay teg bër yëpp yi nga gis yëpp xalqu la moo tax qul a'uuzu bi rabbil falaq ba ci yàlla ñëwee moo am juróomi turu yàlla xolonga benn turu yàlla xolonga sa biribil falax ci di ci juróomi xay ci beneen turu yàlla rabil falax min sari maa xalax ci xayu la mbind mbindeef koy moom koy ne ñoom ñaar nañ bokk ndey ak bàyyi ci benn biir ñu dëkk ci kër gi ba fukki at ndax xay du xam seen diggante ba dootuñ tuddante mën ñoo dem bay tamante ndëm te ñoo bokk ndey ak bàyyi saru xalku gee tax xalku gi moo tax min sari maa xalax wa min sharri xaasiqin xooy guddi lum mu ci ay waay xaasiqin saa nafasaati fil hey paskat yi na wala fajar ma tax mu gën a mooy wahdatul faayil kii def kenn la maa ngi woon ci xalqu ak amru xalqu mooy li yàlla bind nga mën cee teg bot lamru mooy li yàlla bind mënoo cee teg bot mooy mulkoog malakoot mulkoog malakoot waxtu woo gomee yow mi bugg a yëngu bugg a mbir naka jaay def kenn la alfaayilu xaqiqatan huwa allah <laughs> yàlla doon wa mujaasan man awjada li feel majaasan nag yow moom yow la indi tey def la nga xaw a xees boo pudaroo dem boo pudaru dem macha allah mu def la am ci def la defal la xel ba sa loxo boo ko bëggee yëgati def nii kook mooy majaasan yow ci ñiy def nga ba émission bi bu pare ci ñiy participer ci nga bokk ñaar rek moo fi na faayil xaqiqi ak faayil majaas yi kenn kanam mooy yàlla bàyyi ba mu gëmee loolu xóotu na ca dugg na ca ba ba muy waxee ni ko toppee ba ci subhaana la si asra bi bi yonent bi yàllaay rañaan ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy dem ba ne waqatama fathi henda mahdi waqat anat jamii rijaalil xëy bi taxta xadaay xam nga loolu yàlla rek ko mën a jaam yàlla boo xam ne sa kanam la juddoo mu ngi juddoo 1900 1900 zéro ñetti zéro ñaari zéro 1900 c'est 19 rek la 19 arqaam yi fi yi def yu rëy yëpp ci kaw suuf 19 la wallaay téere téere la ci lañ ci taalif téere 19 ci la lépp bisimilah rahmaani 19 la hasbunallah wa ni'mal wakil 19 la 19 19 iqra ba ca biir la malaaka yi taxaw ca buntu kii ti saata asar ah yay taxaw ca buntu kii ba di garde waaw mu ne tama fat inde mahdi yi waxat xaanat jamiu rijal gaa yi kenn ku nekk ku xamoon may ci jamonoom baatin fëgg nga bàyyi ci guddi bàyyi jog nga sukk ci say ñaari wóom ne ko man ka damaa yor suma mbiri bopp manuma feeñ waaye gis naa ne yaa yore lépp bàyyi mu ne ilaa man abaa ndara ñama bokkaloon jamono ñu bañ kooku kenn mënu ci waaye jëmee rijaalil xay bi sukk nañ ci ñeen ñaari boti hóom foo xam ne man ak yàlla fa yàllaay dogalee ay mbiram ñu ne ma jàpp kooku dama la ciy mosal lool boo toppee iradaal iradaal yi mu coox boo demee ci tayba gi ñu waxtaan li sax fa la doon wax ne xër li suban fudalan min kulli shay'in xayru maanaam tànnal ma àndandoor yi gën ca àndandoor ma ñuy hotel seen bopp de ñu nangul baay ñu nangul bay sëriñ bay ñu nangul sëñ ah, alaaji ak si sëñ Alioune Cissé ñu nangul ñu nangul ñu nangul waxuma ñi bugg ñoom ñu gis leen te yorewuñ ñi ñooñu sonal fu mu ne wootekat yooyu ñooñu sonal mooy deuxième point ba xam nga wax naa la wax dootul fayal kii def kenn la ñaareelu point ba mooy boo xasee dogu ci mbir nanga ca dogu te dëggu ca fek sottiwul bul ko bàyyi ah moo tax si Ibrahima daf ne man ba ma xamee ne yàlla daf ma teg may muraadan da kiñ namm murid mooy ñëw ci gannaaw moo tax gars yi di woote yow mura murid lañ te duñ murid dëggu sax xam si Ahmad Bamba ji nga ni mu ko murid ku namm yàlla rek bàyyi mu ne ku namm yàlla foog nga jaar ci muraadullah kan kay kay wane ca yàlla mu ne moom mooy muraadul xaq muraadu yàlla namm yàlla ba mu xamee loolu bés ni ki keroog daf man man man ana Cheikh Ibrahim muraadan li islahil basari man dama ñëw pour defar àdduna bi yëpp Mindéeg Pool ak ñëpp dama leen bëgg a defar ba bu ñu dee ñëpp aljana lañ jëm kenn du fi dugg safara sëñ Tuubaa bi ko gars yi si ko mënoo wax ci yàlla ci nit yàlla te waxoo ci ñaan moom dafa ñëw ne wër irham jëmeel wara bàyyi moom mu ne ba mu xamee ne moom mooy muraadul xaq mooy fi xalqihi li islaahi lbasariya wa li islaahi lkawn wa li tasihi l iman wal islaam wal mu ne keroog la doogu ne lii du ma du ko ba mukk fee xaw ma ci résultat fi multaqa turuqa mu ne nag bàyyi na mu ne ba ma déparé xam na maay muraat xam naa ne sele bi yoon bi moom ñaar rek la lu baax ñooy ak lu bon ñoo fay daje si waaye dinaa fexe ba séparé leen xanaa kañ dama fee bayee ko gars yi jaxase leen borom dokk yi nga xam ne dokk yi dara newu ca biir <laughs> ak borom kaare yi nga xam ne dara newu ca kaw si ndigale la waroon njëkkee fii maa ko teg bi waaye ci ndigal lañ ko waroon def ñooñu ñoo yàq wala ñoo bëgg a yàq ndax yoonu bàyyi kenn mënu ko yàq turuqul xayr wa charr wa dalala lan mooy safaan ba hidaaya salaax moom mu ñëw rek jël turuqul hidaaya turuqul salaahiya turuqul fathu turuqul nicma turuqul eh, ifaada wa istifaada jëriñ jëriñ moo tax mu ne li may indi ci sariya di ko indi ci tariqu Moustapha sallallahu alayhi wa ak eh, diine yàlla ji ak jëfalal yàlla ji teku ñetti maqaama yi ma leen jàngal peese leen ko la sëriñam waxoon Cheikh Tidiane daf ne lu ma fi wax rek peese leen ko sariya lu dëppoo sariya bu nekkee ci tarixa bi jël leen bu nekkul ci xam nga ñun nag kër baay baay ba muy wax lii xamoon na lii ñëw ne nag yooyu buñ ko seggoon fu mu ne li ñuy desee du mat kii